dama bëgg a xamal wax foofu rek ne kon yonent bi alayhi salaam yàlla moo ko yónni ab yonent la yonent nag yow bu fekkee gëm nga yàlla te gëm ak yonent doo am jafe-jafe ci mboolem xar baax yi ñu ko waxal yëpp yonent mooy koo xam ne yàlla ci bopp moo ko tànn ci biir jaam ñëpp jox ko xam-xamu boppam wa allamnaahu min ladunnaa man xam-xam ba mu yor du bokk xam-xam li ñu jàng ci kër yi masalan yàlla moo ko xamal la la wér ak la baax mu di ko waxal du yem ci loolu yàlla dana feeñale ci moom mbir yu bare bari yoo xam ni day yéem doomu aadama yëpp yonte bi li gënoon a yéem ci moom mooy mooy masalan li may wax lu bare bari mooy jëmmi yonente bi xam nga bindeef la yàlla da ko xam ne xul innama ana basarun mislukum loolu la wax mooy man mbindeef laa ni yéen waaye da jaateg yuuxaa ilayya foofu la wuuteeg nit ñi mooy wax yi di koy dikkal foofu la wuuteeg mbindeef yi teewul nag jëmmi yonente bi alayhi salaam itam ci ne booy xool ni ak li ñu natt li teewul jëm jëmmam ci loo xam ne bokkut ak xar baax yéene lu ku yéemu la woon ndax moom su ne aw ñaqam dañoo xam ne atyabu min riixi al misk loolu la sayidna anas ibnu malik wax anas ibnu malik yaayam mooy ummu ummu ummu ummu ummu sulaym wala ummu salim ummu sulaym ummu sulaym lu ñuy wax ummu salim yaayam jooju nag doon ko am faseer moom yaay anas ibnu malik mi doon ko am faseer ba anas ibnu malik juddoo ba xaw a dëgër dafa ñëw indi ko yonente bi ne ko kii sama dooma dama bëgg mu nekk fi di la liggéeyal dama la ko jox mu di la liggéeyal Anas ibn Malik nee na liggéeyal naa yonente bi fukki at yoo xam nekk naa fa di ko liggéeyal Anas moomu nag moo nekk li wax ni yaayam pëstee fa mu bari ak bëggum bëggul yonente bi alayhi salaatu salaam ba amu ci sago daa taxoon yonente bi daa def léeg-léeg mu mu dem fa te Ummu Salim moom mu Salim mu Salim dafa daa dem waxtu bëccëg léeg-léeg bu demee dugg ci néeg bi ñu bàyyee ko ko mu di fa nelaw moom yonent bi alayhi salaam fan la daa def xaylu la xam nga lislaam dafa am lu ñuy wax xaylu la mooy nelaw yu bëccëg yooyu nga xam ne dañ ko sopp ci jullit bële boo nelawee boo xéewloo nga nelaw tuuti boo fekkee gudd la nag boo xéewloo nga dox donte ñeent fa ko jël li naare naare gànnaar dañuy wax ne taxaza tamasha wala taasha tamasha walaw qaa qadam taxaza tamadda walaw lam tanam loolu naa la gën a yaar yaani boo taasha tamasha walaw walaw walaw qaa qadam doon téeméeri jéego boo boo boo reeree na nga ko dox soo añee nag moom taxaza tamadda da nga tàllalu tëdd walaw lam tanam ak donte jotoo nelaw maanaam mënta ñàkk loolu lu am solo la ci dund yonent bi daa def nag léeg-léeg umu salim moom foofu la daa dem di fa def xaylu la boobu waaye yonent bi alayhi salaam bokk na ci li yéemu ci moom li yéemu ci moom mooy moom wax suñ daa ñàkk te maanaam ñàkk yu metti moo ko da dikka bu masaa nelaw fi de ñàkk wi day yokk day mujj ñàkk wi coom day taa ndox fi ne fi mu tëdd tax bu ñëkk maanaam lal yi dañ ko daa defar nii ay ak der lañ ko daa muure nga xam ne ndox mi bu ci taayee fi ne du gaaw a wàcc ci suuf Ummu Salim nag def fu yonte bi nelawee ba ñaq ba ñaq yu bari bari ba taa day jël wut butéelam ñëw di ci di ci di ci di ci maanaam di ci dëkkam ñaq yi maanaam day def rëdd baaraamu ñaq yi ndoxum ñaq yi topp ko dugg ci butéel moom Ummu Salim benn bis nag yonte bi bi ñuy bi ñuy dëkkam ñaq bi rek alayhi salaam aleykum yonte bi yow ne ko waaw umu salim looy def ni mu ne ko ñaq wi laay laa la laa soxla te ñaq yi laa soxla ndax moom day parfum bu neex te jigéeni màkk yëpp dañ ma wax naa leen ci wutal naa leen ci tànk nga xam ne buñu masaa bu masaa wut ñaq wi da ci defaral boppam maanaam boole ko parfum yi mu am ndax da koy gën a neexal jox waa jigéen yi madina yëpp kenn ku ne boole ko sa parfum nga xam day gën a day gën a neexal parfum yi maanaam yonent bi alayhi salaam bokk na ci li yëngu mooy ñàq bi moo gën a neex misk misk mooy gëtt gi gën a neex ci jamono yi mooy parfum bi gën a neex nga xam ne fi mu ne wax nañ ne buñ ko daaw buñ ko daa ku ko daa seet te xamu fu mu ne ñaq wi ngay topp rek maanaam fu mu fu mu fu mu toog ni xeetu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp ko xamoon maanaam maanaam fu mu jaar fi ne ne boo fa jaaree da ngay gis ne fii la jaar maanaam topp xeetu maanaam alayhi salaatu wasalaam ba ba àgg ca moom Umu Salim nag loolu la net li Umu Salim këram benn bis maanaam wax na ne bi yonte bi jógee da ko laaj ndox mu jël benn baag bu mu yoroon ndox nekk ci mu jox ko yonte bi alayhi salaatu wasalaam yonte bi naan ci ba noppi joxaat ko bu ñu ko joxee mu jël gémmiñu baag bi dagg ko mu ne ko looy def li mu ne ko gémmiñ maanaam baag maanaam fii sa gémmiñ bu sell gi tege incha allah bëggatuma kenn maanaam maanaam teg fi gémmiñam ma la loolu dama koy jël barkeeloo ko maanaam barkeelu foofu la foofu foofu la tàmm xadis yi mu wax mi ngi ci mi ngi ci Buxaari ak Muslim yëpp xadis la boo xam ne Buxaari ak Muslim daje nañ mi nga kon loolu day gis ne kon maanaam jëmmam ji ni ma ko wax ne bari bari moo daa wuuteeg nit ñi ci ci ci lépp mooy aw ñaqam alayhi salaatu wassalaam moo gën a neex misk nekk noonu bokk na ci li yëpp nga xam ne dañ ko wax lu bari bari mooy yonte bi ni mu daa gisee kanamam ni lay gisee ginnaawam te loolu xadis yu bari moo ci wet moo ci wet yoo xam ne muttafaqun alayhi nga xam ne Buxaari Muslim lañ ci daje mooy ci njëlbeen gi bi ñu doog a farataal julli leen daa wax ne bu ngeen dee julli dee leen xaar ba ma rukkoo ngeen doog a rukkoo bu leen ma jiitu su jooti noonu bu leen ma jiitu lu ci waaye def nag sama ginnaaw bu sikk ne maa ngi lay gis ndax man inni la araakum min warai dahri fa inni araakum min xalfi kama araakum amaam yi maanaam ni ma leen di gisee bu ngeen maanaam bu ngeen nekk sama kanam noonu la leen di gisee bu ngeen nekk sama kanam yooyu lu yéemu la borom xam yenn sax bu dee dañuy dañuy tawil lu ñu dugg ci naa dafa am bët yu nekk ci ginnaaw ba fekk amul maanaam sax amul ay bët yu nekk ci ginnaaw waaye maanaam ab yonent la ab yonent moom yàlla rek a xam mbiram kenn xamul nu mu daa def ba gis la ci ginnaaw bokk na ci itam loolu mooy mooy masalan yonent bi alayhi salaatu wasalaam dawul am takk ndeer maanaam bu ma saa dox nii digg naaj lu naaj tàng tàng maanaam kenn du gis takk ndeeram amul takk ndeeram loolu it lu yéemu la ndax doomu aadama joo gis jëmm joo gis rek bu naaj wi nekkee ci digg njolloor faw mu am takk leer boo xam du bokk dëmm loolu la yonte mosu ko am moom nekk noonu it maanaam xeetu weñ yeeg yi daw ni dawuñu ko dawuñu dal ci jëmm alayhi salaatu wasalaam dañ ko daa moytu weñ yeeg ba ci weñ moom moom la riwaayaat yëpp ñëw waaye am nañu ci teg ne yooyu itam noonu la noonu laa def moom daw ko daw daw ko kii nekk noonu it wax nañ ni li imaam Bayhaqi imaam Ibnu Asakir ñu bari ñëpp nekk nañ wax ne moom guddi itam ni mu ci daa gisee mooy ni ñu gisee ci bëccëg rek lu mu lëndëm lëndëm day gis nekk noonu it bu ma saa di wax fi ne bu ma saa nekk di wax ci jàkka ji waa dëkk yépp koy dégg loolu li gën a yëmu moom la al bara bara ibnu azib yaakaar naa lañ ko wax bara ibnu azib moo ko nett li te imam bayhaqi nett li ko wax abu nuaym ci xilyatul awliya wax ne maanaam aj gi mujj def keroog fa mu taxaw ci arafa di wax ña nekkoon ci xayma yi ca ginnaaw nga xam ne maanaam boobu xam nga aj gi mujj yonte bi ànd nag ñe téeméeri junni nit téeméeri junni saxaaba ñoo ko fekk ak lu teg te booba ñe nekkoon ca ca mujj ga ca xayma ya ba ca jigéen ña ca biir xayma ya nga xam ne moom dañoo sori lool fa yonte bu nekkoon ñoom ñëpp commencé doon dégg lu yonte bi la alayhi salaatu wa salaam maanaam loolu du yomb la maanaam kàddu goo xam ne da nga mën a fi nekk fii di wax di dikkal waa dëkk ba yëpp madina itam loolu ci am am na kenn ci saxaaba yi koo xam ne këram nee na laa toog nee na dafa toog këram te këram sori na loolu ak jàkka ji nee na dégg yonte bi wax ne boo fekk ñuy waaj julli mu ne taxaw leen maanaam li ñuy wax taxawal leen julli taxaw leen nee na man ma daal di àgg suuf fa ma fa ma toog maanaam te boobu ma nga këram di wax kàddu yonte bi la la dégg foofu loolu itam lu yéemu la loolu lépp nag day tegtale ne li suñ di wax ne man zanna anna al muntaqa mislul wara fa huwa humrun qalbuhu ma nuwira parce que koo xam ne jàpp na ne yonente bi moom mbindeef yi ñooyam kese moom nit ñi ñooy ñooyam ci lépp nee kooku xumru foo wa xumru xumru mooy sam xel neexut waxuma la borom xam-xam waaye sam xel ci boobu neexut fii maanaam amoom xel qalbuhu man wala sa xol leerul xam nga xam-xam nekkul ci fal ilmu laa bi kasrati riwaaya li suñ ci wax nekk li yu bari wax wax ba ñëpp yéemu loolu du xam-xam li mu wax ne bal innahu nuurun maa diraaya leer la goo xam day toq ci xol goo xam dana jural xàmmee xam ak xàmmee képp koo xam nag yonte bi da nga ko def moroom ci misaal rek ci gàttal yow amoo xam-xam waxuma la am xam-xam waaye maanaam sam xel ci moom moo moo neexut bu ko defee nag Sëñ Tuubaa leeral nañu mboolem yu bare bare bare ci yonte bi lu tegtale ak yéemam ak xar baaxam bokk na ci li mu wax ne minha salaamul xajari maanaam yonte bi ci moo wax ni makka de xaw naa fa doj woo xam ne fu ma ko rombe mu ne ma assalaamu aleyka ya rasulallah maanaam fu ma ko rombe doj woo xam ne fu ma ko rombe mu ne ma assalaamu aleyka loolu lu lu lu yëmu la maanaam doj yi mën a communiquer ak moom mën a wax ak moom mu koy dégg bon am na sax lu yëmul lu gën a yëmu loolu mooy mooy li suñ wax suñu tasbihu taam maanaam ibnu Mas'ud dara wax ne nun buñ masaa di xewlu ak yonente bi alayhi salaatu salaam dañuy dégg maanaam lekk gi ni ñu sàbbale su ku su ko yonente bi rek da ngay dégg lekk gi doom di sàbbal subhanallah subhanallah bi kenn xamul fu mu yem kunna naakulu maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa nasmau tasbiha taam ay riwayat yu bare bare la ibnu Mas'ud moo ko nettali am na ci itam lu lu yomb ci loolu mooy benn bis li yaakaar naa imaamu Tirmisi moo ko nekk li mu wax ne yonent bi mas naa yor suñ toog nii yaakaar naa Saad ibnu Abi Waqaas ibnu Abi Waqaas moo ma ko tee xam mi ngi ci téere bi ñu tuddee Mu'jizaatu Rasuul yu bëri bëri mi ngi ci te yëpp indi na sanad bi wax comme ne wax ne daa fekk moom yonent bi ab saxaabi la dama yaakaar Saad laa ko moom ko tee xam Sayyidina Saad ibnu Abi Waqaas wala Saad ibnu Mu'aaz neen dañoo dama fekk yonte bi ak abou bakar seydna abou bakar ak seydna omar ak seydna osman ñoom ñëpp ñu toog yonte bi yor ay doj ni ci loxoom jataay bépp dëgg di doj di sabal di wax di sabal yàlla su ca kaw ñëpp dégg ne mu teg ko kenn déggatul wax bi mu jëlaat ko ñëpp dégg mu jox ko seydna abou bakar moom ñëpp dégg muy sabal neen seydna abou bakar teg kenn déggatu ko mu ne ko joxal aussi joxal omar seydna omar téye doj yi ñëpp dégg muy muy coow di sabal nee na moom Seydina Abubakar Seydina Omar mu ne ko tegal mu teg kenn déggatu mu ne joxal Ousmane Seydina Ousmane téye moom ñëpp dégg ko jotaay bépp mu tegaat kenn déggatu bu ma juubul nag saxaab yi dafa wax ne saxaab dafa wax ne man ñu jox ma ko bi ñu ko joxee ne kenn déggu dara xëy na moom daja bokkat ci ci ci loolu waaye foofu loolu moom la suñu wax salaamul xajari masalan doj yi daa ko nuyu daa sabal ci ci ci ci ci ci loxoom ñëpp di ko dégg sabal goo xam ne ñi nekk ci jotaay bi ñëpp dégg doj wi di di sabal yàlla